asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ni yéen ñuy seetaan ci TMS TV gannaaw ba nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci kàddu ni yoo ñu lislaam boole ñu koy waxante ci sunu biir muy afshu salaama baynakum muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñaan jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barke yàlla ko yàlla defal àdduna bi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina réew mii nga xam ni fi la ñuy yeewoo muy réewu senegal jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax jiital ci sunu sëriñ sunu PDG alxaaji Thierno Moule Sow ñu nuyu ko bu baax ziyaara ko ndokkeel ko ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla dooli ko dëgëral yal na yàlla dooli ko sàmm yal na yàlla doolee ko aar barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu nuyu kilifa aada yi itam tabaarakallahu ñi ngànk réew mi ñëpp ci wàllu administration ak fu ñu mën a ne jiitoy ko ci ki nga xam ni moo jiite réew mi yal na yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem nag auditeur euh, téléspectateur euh, yu ak téléspectatrice yu TMS TV di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di leen wax ni yéen a ngi ci seen émission bii nga xam ni moom la ñuy tuddee ëttu bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu fii ci TMS TV ñuy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci waxtaane am njàngaleem moom sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam ndax jamono mënul dox mukk te doxul doxinu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jamono dox wala jamono neex wala ñi ñu juboo ak seen boroom wala ñu am li nu bëgg faaw ñu jéem a dox doxinu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom la yàlla waxoon ni wa maa ataakum rasulu fa xuzuuhu wa maa nahaakum anhu fantahu yàlla ne woon na lépp loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam sang bu tedd bi indil na leen ko yàlla nee na fa xuzuuhu na ngeen ko jël te jëfe ko seen njëriñ la wa maa nahaakum anhu fantahu lépp loo xam ne tere na leen ko tere boo xam ne ci moom la bàyyi ko moom salaay salaam yàlla nee na na ngeen ko bàyyi ngir la nga xam ni moom la leen tere boo leen ko defee ci mbugal rek la leen di yóbbu boo leen ko bàyyee mu doon seen njëriñ sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa mu mel ni tey nag danoo bëgg a tudd fukk ak ñeent fukk ak ñeent juróom-ñaari sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na aljana la nu jëm mais juróom-ñaari ci des sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na safara la nu jëm kon nag kenn ku nekk yaay xool rek ci ci ci ban juróom-ñaar nga bokk <laughs> ci fukk ak ñeent yooyu yaay xool ci ban juróom-ñaar bokk juróom yu njëkk yi ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni sabaatun yuzallamuhumullah fi zillihi fi la zilla illa zillahu nee na juróom-ñaar ñi yuzilluhumullah yàlla dana leen keral fii zillihi ci keram nga yawma laa zilla illa zillahu bis ba nga xam ne benn ker amul bu dul keru yàlla loolu loo cay dégge mooy yowmal xiyaam xam nga yowmal xiyaam yàlla dafay wàcce jant bi ba mu tiim ba mu tiim yuur yi ndax jant bi fii nga nga koy gis nii léeg-léeg mu naaj ba tànku neen munoo doo ko mën a doxe ci suuf si te pourtant jant bi ay junni junni junni kiiraay moo yiir jant bi pour mu bañ a tàng ay junni junni junni kiiraay bu yemal xiyaamee nag mboolem kiiraay yooyu nga xam ne moom la yàlla def suñ diggante ak jant bi ngir tàngaayu jant bi bañ ñoo gaañ yàlla daf koy dindi bu ko yàlla dindee nag day wàccee jant bi bu wàccee jant bi ba jant bi tiim yuur yi waaw yàlla nee na nit am na ñoo xam dootuñu am maîtrise wa taraan naa su wa taraan naa sa sukaara wa maahum bi sukaara yàlla nee na am na ñoo xam ne dañuy telli telli rek di mbëkkante mel ni ñu màndi yàlla nee na déedéet màndi wu ñu de waaye mbugalum yàlla moo tar ndax jant bi nga xam ni moom laa leen tiimale kon nag bis boobu nag sunu borom wax na ni bis boobu yàlla wax na ni euh, ñépp ci naaju la ñuy nekk mais juróom-ñaar ñii yàlla nee na dama leen di keral ci suufu arash juróom-ñaar yàlla nee na man yàlla maa leen di keral ci suufu arash ba régler jaam ñi ba pare daal leen di bàyyi nànk ñoom ñu dem dugg aljanna waaw ndax yomal xiyam yàlla du régler ñépp yomal yàlla du régler ñépp nit ñi ñetti xaaj la ñuy doon xaaj bi aljanna la jëm xaaj bi safara la nu jëm mais xaaj bi nag moom dañuy xool fu nu jëm ñoom ndax am na ñoo xam ne ci topp seen boroom rek la ñu ne ñooñu bu yomal xiyaamee kenn du leen réglé aljana la nu jëm inna allazina amanu wa amilu saalihaati lahum jannatun tajri min tahti al anhaaru xaalidina fiha ñi nga xam ni ci mooy seen borom rek rek rek la ñu ne ñooñu kenn du leen regle safara la lu jëm inna allazina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikina fii naari jahannama xaalidina fiha ulaayika hum charrul bariya kon kenn du leen régler benn xaaj bi la ñuy régler xaaj bi mooy ñan mooy ñi nga xam ne bu tayee ñu baax bu subaa ñu bon bu tayee ñu julli bu subaa ñu naan sàngara bu tayee ñu woor bu subaa ñu jaaloo ñoom daal meluñu neen bu tayee ñi ngi fii fii lan far bu subaa fii lan far tey ñu ngi ci jàng yi samedi ci ngoon samedi ci guddi ña ngi ca ba ñooñu mooy ñi nga xam ni nag ñoom ñoo jaaxal seen bopp jaaxaluñu yàlla nag mais ñoom seen bopp la ñu jaaxal buñ naan dañuy teg balance ñoo ñoo tax ñuy wax bu ñu tegee balance bi xool sa yu baax ak sa yu bon ban moo ëpp sa yu baax bu ëppee nga fekki ñu baax ña sa yu bon bu ëppee nga fekki ñu bon ña waaw xaaj boobu la yàlla régler ëllëg yowmal xiyaam yonent bi salaay salaam nag wax ni juróom-ñaar ñii ëllëg yowmal xiyaam yàlla du leen topp dara dara dara dara dara da leeni mbaaral ci suufa arash mbaar mu sedd guy ñu nekk fa ba yàlla àtte jaam ñi ba pare yàlla ni leen udxulul jannata ma addaaxiliin dem leen dugg aljana ànd ak way dugg aljana yi waaw juróom-ñaar yooyu kan moo ci njëkk yonent bi salaay salaam ni imaamun aadilun njiit lu maandu njiit lu maandu moo njiitu réew la moo njiitu tribunal la moo xam borom kër la moo xam njiital entreprise la mooxam xam loo mën a jiite moo xam ngay jiite moo xam loo mën a jiite maandul waaw inna allaha bil adli wal ihsaani yàlla nee na maa ngi leen di dénk na ngeen maandu booleek rafetal moo tax njiit su maandoo ëllëg yowmal xiyaam yonent bi salaay salaam nee na kenn du ko regle yàlla da koy tàntal ca suufa arash mu toog fa ba yàlla régler jaam ñi ba pare mu daagu nank dugg aljanna maandu nag maandu te nag dafa jafe waaw njiit maandu dafa jafe am na ñoo xam ne bu ëllëgee yomal xiyaam ñàkk maandu ci seen diggante ay doom moo leen di dugal safara ittaqullaha wa adilu bayna awlaadikum am na ñoo xam ne ñàkk maandu ci seen diggante ay doom di leen gënale moo leen dugal safara am na ñoo xam ne ñàkk maandu ci seen ay diggante ay seeni jabar ëllëg yowmal xiyaam moo leen di dugal safara waaw ah, dañuy sàcc kay ah di xottil kii jesner di xottil kii xartum ah, di defal kii di may kii xaalis kii duñ ko may xaalis ci dépense rek la ñuy ak moom bu kii ayee ñu jox ko dépense bu bari bu kii ayee ñu jox ko dépense bu tuuti mooy taqale ah kooku xam nga xam nga ni kooku maanduwul waaw moo tax njiit dafay maandu yamale waaw njiit dafay maandu yamale voilà nee na nag imaamun aadilun njiit lu maandu ëllëg yowmal xiyaam yàlla du ko topp dara da koy ka tàndal ci suufa arash ba yàlla rek la jaam ñi mu dem dugg aljanna ak wa shaabun nasha'a fi ibadatillahi ak ndaw loo xam ne dafay jaamu yàlla waaw ndaw luy jaamu yàlla waaw ëllëg yowmal xiyaam yàlla du ko topp dara da koy tàntel ci suufu arash ba rek la jaam ñi ba pare di ko daagul nank dugg aljanna parce que am na foo xam ne fii la àdduna soxlaa yow ndaw li foofu la la sa boroom soxlaa waaw fii la àdduna soxlaa tare football ba soxla na la làmb ja soxla na la soirée ya soxla na la feneen ak feneen ak feneen soxla na la ndax am na loo xam ne ndaw koy def am na foo xam ne boo demee ay ndaw rek nga fay xanaa ak mag mu ñàkk fayda am na foo xam ni boo fa fekkee mag man ngaa waat ni kii mag mu ñàkk fayda la waaw mag mu ñàkk fayda dafa am xam nga waaw mooy mag ñooñu nga xam ni bu ñu demee ba bejaaw dañuy jël ñuulal ñuulal bejjaaw ba ba mu ñuul bëgg a maase waat ak jeunes yi karaw gi nga mën a changé waaye bët yi moom maa ngi koy lëndëmal mënoo ci dara yàlla nee na karaw gi nga mën a changé mais tànk yaa ngi ruux mënoo ci dara karaw gi nga mën a changé mais ndigg laa nga yëngu mënoo ci dara waaw ma ngoog waaw shaabun fi ibadatillahi ndaw loo xam ne dafay jaamu yàlla jaamu yàlla lépp loo xam ni lu safaanoo la ak li yàlla bëgg mu teg ko fee nekk ci li nga xam ne moom la ko yàlla sant ëllëg yomal xiyaam euh, yàlla daf koy keral ci suufu arash ñetteel ba yonent bi salaay salaam ni wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid nee na ak góor goo xam ne xoolam dafa taqoo ak jàkka koo xam ne bu amul ngaan toujours ca jàkka ja lay jullee suba tisibaar takkusaan timis geewe nee na moom daal jàkka ja lay jullee waaw bu toogee xel maa nga ca jàkka ja bu bu jugee jàkka ja di ñëw xel maa nga ca jàkka ja waaw kooku bu ëllëgee yowmal xiyaam yàlla da koy tàntal ci suufu arash mooy koo xam ni xolam dafa taqoo ak jàkka dafa bëgg jàkka te gars yi nag toujours ngay wër yàlla te nu ya te ni yàlla néegu yàlla mooy jàkka te doo dem jàkka te ni yow yàlla ngay wër te ni da bëgg sa soxla faju nanu xoolaat loolu nag wax dëgg yàlla am na loo xam ne nag boo bëggee mu faju da ngay dem fa muy fajoo mais comme jàkka mooy néegu yàlla yow nga lànk ni doo dem jàkka d'accord julli ci kër baax na dara newu ci mais julli ca jàkka ja moo ëpp yool boo amul ngant waaw ndax boo jullee ca jàkka ja dañu lay bindal vingt sept point vingt sept point boo jullee ci kër gi ñu bindal la benn point kon julli ci jàkka moo doole fuuf ci góor que mu julli ci kër gi mooy julli célibataire ak marié rek célibataire bu julli benn point ngay am marié bu jullee am vingt sept point bokkuñu moo tax célibataire yi bu yeboo ñu ñuy fexe di jéem a dem ca jàkka ja waaw ah, yi dee leen dem ca jàkka ja parce que boo dee célibataire ba pare yow dèjà benn point nga am ba pare doo dem jàkka dolli ci yow foo jëm foo jëm ah moo tax wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi góor goo xam ne xolam dafa taqoo ak jàkka waaw mu ne ka ca des mooy wa rajulaani taxaaba fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi ak ñaar ñoo xam ne danoo soppante te yàlla tax bu nuy daje yàllaa tax ñuy daje bu ñuy teqalikoo yàllaa tax ñuy teqalikoo lu jafe ñaar ñoo xam ne dañoo soppante te yàlla rek tax yàlla yàllay kese tax dara raxu ko lu jafe laa wax léegi ànd yépp yu ci baree baree bari intérêt ko lal su ma gisatul sama intérêt ci yow dootuma ànd ak yow soo gisatul sa intérêt ci man dootoo ànd ak man soo ma mënatul a utiliser doo ànd ak man su ma la mënatul a utiliser du ma ànd ak yow mbokk loolu du ànd bu baax loolu du ànd bu baax ànd dañ koy def ngir yàlla ndax lu tax ngay àndak nit lu dul yàlla rek loola dafay jeex nit boo ànd moom ngir alal alal ñaar rek fi ne alal day xëy jeex wala yow nga xëy dee bàyyi ko fi ñaar rek la alal mën day xëy jeex wala yow mi ko yor nga xëy dee bàyyi fi alal waaw looloo ci nekk nit boo ànd moom ngir leneen itam day xëy loolu jeex am na woykat yoo xam ni xewoon nañu fi lool lool lool lool lool lool ndeysaan am na ku ma ciy déglu yàggul mu ni am nay jamono yoo xam ni dama daan feesal stade Demba Diop ba mu fees dëll ak mbooloo nee na jamono yooyu xeeb naa cinq cent appel par bis li may jot ci appel xaw ma nu mu toll mais léegi damay toog ba yàgg damay jël sama benn téléphone bippee sama bopp ba xam man sama numéro mi ngi dox wala doxul parce kenn damaa woowatul man ko da xeewi te ña la daan woo di ànd ak yow ba ñuy ànd ak yow yàlla taxul waaw ah, li nga doonoon a tax ah, li nga doonoon rek a tax li nga doonoon ba nga xewee bàyyi nan la dem xooli keneen ku xew waaw ah, moo tax ànd yàlla daf koy lal parce que lu dul yàlla ànd lu dul yàlla bu lalee ànd ànd boobu ci ci ci ci jeex lay mujj mais àndu yàlla nag du jeex àndu yàlla du jeex àndu yàlla ba ca kanamu yàlla la yàlla boole leen xam ne ñaar ñu dëggu ngeen yàlla dugal leen aljanna moo tax yonent bi salaay salaam nee na ñaari nit bu nu soppantee di ànd te yàlla tax seen ànd bu ñuy daje yàllaa tax ñuy daje bu ñuy teqalikoo yàllaa tax ñuy teqalikoo yonent bi salaay salaam nee na ñaar ñooñu bu ëllëgee yomal xiyaam yàlla xool xam ne jëmmam rekk a taxoon ñu jàppante yàlla nee na eh, yonent bi salaay salaam nee na yàlla da leen di keral ci suufu arash ba régler jaam ñi ba pare ni leen daagu leen nànk ngeen dugg aljanna bi ci des yonent bi salaay salaam ni wa rajulun daathu imraatan zaata mansabin wa jamalin fa indi inni aqaafullah <laughs> bii nag jafe na nag moom <laughs> nee na salaay salaam nee na 31 décembre baa ngi ñëw 24 décembre baa ngi ñëw fin d'année yaa ngi ñëw nee na ak góor goo xam ni góor goo xam ni dafa toog biir néegam dëgg leen ma bu baax góor goo xam ne dafa toog biir néegam demul fenn mais jigéen joo xam ni moom la ñépp di wër macha allahu rafet na ci taar rafet na ci dagg taar bi ñëw na dagg bi rafet na mu mel na mu war a mel ñëw fekk la sa biir néeg simmeeku ni la tey jii je suis à toi yóbbu la neex tey yaa moom jagleel naa la sama bopp tey nee na nga ni ko <laughs> inni aqaafullah man damaa ragal yàlla duma def loolu <laughs> salaay salaam nee na jigéen joo xam ni taaru na am na alal taaru na am na alal ba pare askan wu ñépp di wër la bokk kon waxuma ñi nga xam ni daanaka jigéen ñi nga xam ni daanaka mooy loolu waxuma ñooñu koo xam ne dafa rafet lool ab xool jooy jigéen boo xam ne xool jooy la xam nga am na ñoo xam ne danoo rafet te rafet ba boo leen xoolee sa bëri day taa nga <laughs> ab xool loolu mooy xool jooy rawatina boo boo boo ci mënta jot nag boo ci mënta am ah ndax ni fi rafet ñëpp daanaka daanaka daanaka ay boromi alal lanu léegi te léegi borom alal yi ñooy takk borom alal yi Ah, dukkure yi dukkure yi la takk looloo fi ne léegi ci Sénégal mais jigéen boo xam ne dafa taaru lool am alal bokk ci askan wu baax bu ñépp di wër ñëw fekk la nga toog mu jébbal la boppam nga ni ko inni aqaafullah man kat dama ragal yàlla lii nga bëgg duma ko def <laughs> jafe na nag <laughs> eh, moo tax euh, salaay salaam wax ni góor boo xam ni def nga loolu yonent bi salaay salaam nee na euh, bu yowmal xiyaamee yàlla dina la keral ci suufu arash ah, góor ñi nga xam ne nag ñoom ñooy wër ndeysaan topp sedd bi di wut ku fat kon ñoom man xaw ma fu nu jëm waaw bi ci des yonent bi salaay salaam ni wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xataa laa taalamu chimaalahu maa yunfaxu bi yaminihi maa yunfaxu yaminahu nee na juróom-ñaareel ba mooy góor ba mooy góor goo xam ni wala nit koo xam ne day saraxe day saraxe waaye sarax bi muy saraxe li muy joxe social bi muy def bi muy dimbalee daf koy nëbb ba càmmooñam sax du xam lan lan day jooram di joxe lu jafee ngi noonu tamit boobu dafa jafe ngay joxe yow yaa ngi joxe ay millions yaa ngi joxe ay milliers yaa ngi joxe di joxe loo xam ni wóor na la ni ñu bari joxe wunu ko waaye danga koy nëbb nëbb goo xam ni sa càmmoñ ah sax du xam ni li sa ndeyjoor joxe ba waxuma la nag keneen di ko xam sa càmmoñ du yëg li sa ndeyjoor di joxe waxuma malaa keneen di ko yëg waaw am na am na ñu ko mën nag am na ñu ko mën waaye am na ñoo xam ni bala ñu laa jox adduna bi yépp dinañ xam ni ñu ngi lay jox waaw ah, waaw xaraamul nag xaraamul di joxe ñépp xam ni dangay joxe xaramul ndax yàlla tagg na ci Seydina Ali ibn Abi Talib yàlla tagg na ko tagg na ko ci ci alquran yàlla tagg na ko ci yàlla tagg na ci Abubakar Sadiq ci joxe boo xam ni jëhëran la ngir jàngal nit ñi ni ku am alal danga ngaa war a dindi dimbali say bokki jullit waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ni yaa ngi joxe te la ngay joxe nga nëbb ko nga nëbbu ko ba sa càmmoñ sax yëgul lu sa ndeyjoor joxe rawatina keneen di ko yëg Seydina Muhammad nee na bu ëllëgee di nga bokk ci ñi nga xam ni ñoom la yàlla di keral ëllëg yawmal xiyaam waaw juróom-ñaareel ba sallallahu alayhi wasallam ni wa rajulun zakarallaha xaaliyan ak góor goo xam ni wala nit koo xam ni day toog wéet di xalaat boroomam di fàttaliku yàlla bay jooy am na am na ñoo xam ni euh, mais xanaa ku ku jigéen joo bëgg mën a jooyloo nag ci boo wéetee xanaa xalaat sa boroom war laa mën a jooyloo nag jigéen jigéen jigéen nga gis jigéen goo xam ne bu ay rangoo tuuroo rek góor a ko tuur góor xalaat góor nga gis góor goo xam ne bu jooyee rek jigéen lay xalaat ah, ñooñu nag ku nuy jooyloo ki nga xam ni moo la bind ah te kenn jàppalewu ko di la wërsëgal te kenn jàppalewu ko kartanal la te kenn jàppalewu ko defal la ne te kenn jàppalewu ko xanaa bu la mbindeef ni yow mënee jooyloo nag sa borom war laa mën a jooyloo yonent bi nee na koo xam ni day faral di wéet di fàttali ko boroomam fi boroomam jaar moom di fàttaliku fi mu jëm muy bàmmeel na mu xate na mu lëndëme suuf si tànc la suuf ci sa kaw nga tëdd ci suuf wéet fa yow képp toog di ko xalaat sallallahu alayhi wa sallam nit ku koy xalaat loolu bay jooy nee na bu ëllëgee yomal xiyaam yàlla dina ko keral ci suufu arash kon juróom ñaar yooyu mooy ñi nga xam ni ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bu ëllëgee yàlla du leen régler yàlla day régler jaam ñi ba pare ni leen udxulul jannata maa daaxilin nee naa la ka jiitu mooy njiit loo xam ne dafa maandu aljana la jëm ñaareel ba ndaw loo xam ne day jaamu yàlla aljana la jëm ñetteel ba koo xam ni dafa taqoo ak jàkka xolam dafa taqoo ak jàkka saa yu amee saa yu amul ngànt ca jàkka ja lay jullee aljana la jëm ñeenteel ba ñaar ñoo xam ne danoo soppante ngir jëmmi yàlla yàllaa tax ñuy daje yàllaa tax ñuy tàqalikoo aljana la nu jëm juróomeel ba koo xam ni jigéen ju mel na mu war a mel rafet na taaru na am na alal sàkku la nga ni ko man duma def loolu parce que damaa ragal yàlla aljana nga jëm juróom-benneel ba koo xam ne day joxe te la muy joxe daf koy nëbb ba kenn du xam ni moom mi ngi joxe wala kenn du xam lu mu joxe aljana la jëm juróom ba koo xam ne day wéet di xalaat yàlla di ko fàttaliku ba ay tuuru aljana la jëm kon juróom-ñaar ñooñu aljana lañ jëm contraire ba nag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni sabaatun laa yanzuru llah azza wa jalla ilayhim yawma alqiyaama nee na juróom-ñaar ñii moom may waaj a wax nee na yàlla du leen sax xool ba batu yërmande ëllëg yawma alqiyaama waaw wala yuzakkihim ñii yàlla du leen ñeewante wa yaquulu udxulu naara maa daaxiliin nee na dañuy ñëw daal bu nu ñëwee ëllëg yawmal xiyaam yàlla danaa leen yéen gaay yéen udxulu naara dem leen dugg safara rek maa daaxileena an ak ñiy dugg safara bu leen fi toog di tardel seen bopp parce que safara ngeen jëm <laughs> juróom-ñaar lanu de ñoom itam nitu safara yi juróom-ñaar lanu bi ci jiitu yonent bi salaay salaam nee na alfaailu wal mafaulu bihi góor guy tëdde góor ak góor gu koy joxe ñu koy tëdde waaw alfaailu alfaailu mooy góor goo xam ne dafay tëdde góor wal mafuulu bihi mooy góor goo xam ne dañu koy tëdde mooy ñun li ñuy wax góor jigéen waaw góor gi koy def ak góor gi koy def ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm sallallahu alayhi wa sallam ko wax waaw ñaareel ba yonent bi ni an naakixu bi yadihi moom xam naa ne célibataire bu ci amul maîtrise safara nga jëm an naakixu bi yadihi <laughs> mooy góor goo xam ni loxoom bii mooy jabaram waaw am na góor goo xam ne day day day mballu ba ba éjaculé salaay salaam nee na safara la jëm waaw waaw ñooñu ëllëg niñ leen di xàmmeewee mooy seen loxo yi seen loxo yi day day day day day day neewi ba doon ngàndam ponkalum loxo yàlla ni comme dangeen daan tëddee seen loxo yi nag tey seen loxo yi biir nanu waaw waaw an naa keex bi yaddihi mhm. bi ci des yonent bi salaay salaam wax ne an naa kexu an naa kexul bahimatu ki nga xam ne day day day tëdde bàyyi ma yi am na ñoo xam ni fas yéene wunoo takk jabar ci mbaaru xar yi rek lañ ko kaal kuy tëdde bàyyi ma yi xar yeeg bëy bu ñëpp tëddee nga dugg ca mbaaru xar safara nga jëm ak jigéen joo xam ni am na ñoo xam ni si ay xaj lañu wut xaj ya di sëy ñoom ay jigéen yoo xam ne ay xaj lañu wut xaj di sëy ñoom waaw ñooñu safara lañu jëm ñoom itam waaw kuy tëdd ak bàyyi ma rek di sëy ak moom safara nga jëm yonent bi salaay salaam ni bi ci des wan naa kexul mar'ata fii du duburiha ak ki nga xam ni soxnaam lay sëyal mais fa muy demee toilette lay sëyeek moom kooku safara la jëm waaw góor buy sëyeeg soxnaam fa muy demee toilette góor googu safara la jëm waaw soxna soo xam ni itam yaa ca ànd yéen ñaar yéen a bokk aate mhm. waxuñu position góor benn position xaramul ci mu sëyee ko ak soxnaam nisa ukum xarsun lakum fatu xarsakum anna shitumu yàlla nee na seeni jigéen seeni tool lanu dugg leen nag ci seeni tool ci bunt bum leen neexe waaw xam nga sa tool bu la neexee nga ñàkk ubbi fii bunt ba subaa booy ñëw bu la neexee nga ñëw dajji dajji fee bunt dugg bu ginnaaw subaa bu la neexee nga ñëw duggee ca bunt bale yaa xam ya tëddeel position bu la neex féeteel ginnaaw féeteel kanam jaaxaanal defeenul wetul supaa jaleñal përiyeel waaye daal yàlla li muy tere mooy li muy tere mooy góor buy sëy ak soxnaam fi muy demee toilette loolu góor bu koy def salaay salaam nee na kooku safara la jëm waaw mu ni akkan wa naakixul mar'ata wa bintaha ak ki nga xam ni day sëy jigéen ba pare di sëy doomu ndaw si yow takk nga jabar sa jabar ëndaale koo xam ne doomam la muy sa doomu jiitle ngay sëy ak yaay ji di tëddewaale doom ji safara nga jëm danga bon yow yaa bon bon moom yaa ko def bon am na ñoo xam ne du ñu tëdd sax seen doomu jiit la seen doomi bopp seen doomi bopp la ñuy tëddee doom joo xam ne ñoo ko jur waaw mais nag ñi nga xam ne dañuy tëddee seen doomu jiit la nag moo gën a bari ah dafa bari bari na ci réew mi am na jigéen ñoo xam ni fa ñuy yóbbu fa seeni doom seeni doom ñuy doomu jiit lay waaji ku jigéen ki waxtu wu génnee kër gi dem marché walla natt wala avec ak li ngay ni mën a dox jàppal ni waajaa nga ca ah. Ah, waaw koo xam ni day sëy jigéen ba pare di tëddee doomi jabaram ah kooku safara la jëm ki ci des mooy wazaani bi xalilatil jaari waaw waaw wa zaani bi xalilati jaarihi ki nga xam ni day tëdde njabootu dëkkandoom sa dëkkandoo nga jàpp doomam di njaaloog moom wala nga jàpp jabaram di njaaloog moom wala nga jàpp koo xam ni njaboot la ci moom moo xam rakkam la moo xam magam ngay njaaloog moom sa dëkkandoo am na ñoo xam ni euh, ñi seeni jëkkër dem mission rek la ñuy wër ca jigéen ñu bon ña waaw ah, parce que am na jigéen ñoo xam ne dañu oyof sër oyof sër ba nga ni ma maara day taal yi yow booy sëyo góor mënoo am satisfaction ci moom ñaan ko baat dem xool ko la mën a satisfaire mu takk la mais bàkkaar bu rëy boobu boobu bàkkaar bu rëy ngay sëyo góor ba pare dem di séq ak beneen góor boo xam ni du sa du sa boroom kër ngay ngay wor sa ngay wor sa boroom kër ngay wor sa boroom kër ate waa ji du ci xam dara ah mënu cee xam dara di wal furuju maa lahal agfaal naa Ali moo ko waxoon benn waaye dafa ñëw ci yonent bi salaay salaam ni ko man sama jabar li muy génn dafa bari te man daal wóoluwuma ko nangam nangam yonent bi ne Alioune tontu ko Alioune ni ko sa waay jigéen ñi li nu yor amul amul amul kànnaar bu amoon kànnaar nga mën a tëj kànnaar bi nga mën koo tëj caabi ko ba ñu dem bu ñëwee nga tijjiwaat caabi ji waaye comme li ñu yor nag amul caabi amul kànnaar sawaay dangay ngay mën a muñ rekk sëy ak moom te wóolu ko boo ko mënul nga fase ko mu dem lii la ko Seydina Ali tontu waaw lii la ko imaamu Ali tontu waaw moo tax euh, loolu jigéen ju koy def xamal ni yaa ngi def bàkkaar bi gën a mag ci bakkaar yi parce que tas xaraamul tas xaraamul comme góor gi bu gisee lu ko naqari ci ndaw si ba mënatu la nekk ak moom dagan na mu fase ko ndaw si itam bu mënatul la nekk ak waaj ji parce que waa ji mënu koo satisfaire dagan na mu ñaan ko baat ni ko lii mooy sama prétexte danga maa mënta satisfaire te bëgguma mooy yàlla ñaan ko baat nga dem ku la mën a satisfaire takk la di la satisfaire bu dee seen àdduna loolu rek la yéen ah bu dee seen àdduna yépp loolu la ah waaw moo gën bàkkaar ah, moo gën bàkkaar bi ci des sallallahu alayhi ni wal muusi jaarahu waaw ah, xataa yalaanuhu ki nga xam ne dafay ñaawal ci digganteem ak i dëkkandoom ba ay dëkkandoom di ko muslu yàlla di ko rëbb bokkul ma diw ñëwati na de waaw bokkul ma diw bokkul ma diw bokkul ma diw waaw di la di la di la di muslu yàlla di la muslu yàlla di la rëbb yonent bi salaay salaam nee na bu ëllëgee safara nga jëm kon juróom-ñaar ñooñu mooy juróom-ñaar yi nga xam ni safara lañu nu jëm ka ca jiitu mooy góor gu nuy tëdde ak kuy tëdde góor góor gu nuy tëdde ak góor guy tëddee góor salaay salaam nee na ñaar ñoo ñépp safara lañu jëm bi ci des ki nga xam ni dafay mballu dafay sëye loxoom ba éjaculé ca kooku safara la jëm ñetteel ba ki nga xam ni dafay sëye bàyyi ma safara la jëm ñeenteel ba ki nga xam ni dafay sëy jigéen ca fa muy demee toilette safara la jëm juróomeel ba ki nga xam ni day sëy ak jigéen ba pare di tëddee doomi ndaw si muy sëyal moo xam moo ko jur moom moo xam doomi jiitleem la safara la jëm juróom benneel ba mooy ki nga xam ni dafay njaaloo ak njabootu dëkkandoom lu mu mën a doon ci dëkkandoo bi safara la jëm juróom ba ki nga xam ne day ñaawal ci ay dëkkandoom ba ay dëkkandoom di ko rëbb mënuñu ko fee jële ndax moo moom këram waaye ñu koy rëbb ngir fitna goo xam ne mi ngi leen koy teg kon mbokk yi yàlla na nu yàlla boole ci juróom-ñaar yi nu njëkk tudd juróom-ñaar yi nu mujjee tudd yàlla nañ ci yàlla musal képp ko xamul woon képp ko xamul woon te doon def benn ci yii nga xam ni moom lañ fi lim xamal na lislaam du topp ko xamul du topp ko fàtte du topp ku nu forcé ñett ñi lislaam du leen topp xamoo lislaam du la topp ba keroog ngay xam boo xamee nag boo xasee ba xam nag loo def lislaam at maa tay lan lay toppee parce que xam nga léegi la nga xamul nag boo ko defee lislaam du la ci topp ki fàtte ki fàtte lislaam du ko topp ki nga xam ni dañu ko forcé ki ñu forcé lislaam du ko topp kon nag ku xamul woon bu nu waxee boo déggee wax ji xamal ni xam nga léegi boo ko daan def bàyyil boo ko daawul def bul ko def ma ngoom juróom-ñaar yi nu njëkk a wax ku ko daawul def na góor góorgóorlu nekk ci ndax aljana la la jëmee juróom-ñaar yi nu mujjee wax ku ci daawul ku ko daawul def bul ko def ku ko daan def na ko bàyyi parce que safara la la jëmee mbokk yi lu ñu cërale woon ci waxtu jeex na tàkk ñuy sant di gërëm tabaarakallaahu sunu caméraman sëñ Fallou di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko sutura xaaji Jibril moom itam Jibril noo santati sax saw Jàllo waa Jibril Jàllo moom itam ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla waaye doyen Abdel Aziz moom itam Diagne ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ak tawféex ba mu dellusiwaat ci sagoom barke yonent bi salaay salaam ak xaaja Maxtaar Jaw borom ñaari galon yi di leen jox dig daje incha allah ajuma ak jàmm ci seen beneen émission ëttu nabi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu